jërë ngeen jëf tong tong naat bu waree am réew dunq yaa tax coowal pétrole bi ci réew mi xaajaguta sàlli ubbi l'observateur liyéene kaay bi wax mooy waa BBC def nañu enquête ba sulli ay mbóot ci contrat pétrole be gaz bi kilifa yi amee réewum Sénégal ñoom it ñoo ngi war ana fan la mbiri jaar ba seen yéene kaay bi nañu looloo waral ba tax ci mbiru Petro-Tim état bu Sénégal saisir na justice bi ngir ñu xam ana lu tax ba rapport IGE bi ci wàllu pétrole be gaz bi mujj ca ak ci réseaux sociaux yi maître Malick Sall mi ministre mi ngi ñuy xamal ne tey jii ci yor yor gi dina gisee ak procureur yi bu ñu ci noppet procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye dina defu conférence de presse tey ji wala ci fan yi di ñëw ngir àddu ci mbir yi fi xew nguur gi nag maanaam état bi ki mu njëkk a njoxtu ne moo tax ba rapport IGE bi mujjee ci yeneen i loxo moo dina Nafi Ngom Keïta mi fi newoon i jamono vérificateur général bu IGE la si ne kay nañu lu soxal rapport inspection générale d'état ak mbóot yi waa ci seen enquête ba te mu jëm ci pétrole beeg gaz bi justice su Sénégal taxaw na te mu ci leeral ko état bi moo si siir yoon ngir di sàkku ci moom mu leeral mbir yi beneen xibaar it bu ñu mën a jàngee ci xët mu njëkk yéenekaay bi moo di commission de surveillance bu caisse dépôt et consignation weddi nañu li ñu ne dañu leen a sant ngir ñu jëlee Aliou Sall ca bopp CDC moo di caisse dépôt et consignation yow nag ni mu duggee léegi ci mbiru Petro-Tim xibaar boobet moom la enquête dina kay xëyee xëy ñu xamal ne ministère de la justice moo sàkku ci parquet bari na kilifa ci réew yoo xam ne njort nañ ne bu demee ba ca ca pandaw nañu Nafi Ngom ci la bokk Sud Quotidien nañu Macky Sall saisir na procureur bi lu jëm ci mbirum Aliou Sall ak ci rapport bi inspection générale d'état def ci anam yi ñu doxalee contrat pétrole yi loolee la justice bi war a lijjanti Vox Populi nañu boole kook di wër ak wërlu li tax ba lii lépp am journal bi nañu it jimboori mi ñuy ŋawta ŋawte ci réew mi jamono ji mu di Aliou Sall mi ngi leeral li tax mu bañ lànk kandaare ne du démissionné ca boppu Caisse Dépôt et Consignation nee na bu démissionné dafay may ay noonam lu ñu ko laata lii lépp di xew dogal bi ma jëloon moo di bu ñu yeggee ba ci weeru septembre lii ma nekk dama ko naroon a bàyyi dem nekk ci leneen sansé carrière Aliou Sall ne dogal boobee ba ma koy jël boobal lii lépp xewagul moom mi xew jamono ji ne jinjeeri xew ci réew mi di Aliou Sall moom la journal La Tribune xëy indi ci xëtamu njëkk mbamb li ko topp fan yi ci coowal pétrole beeg gaz bi yéenekaay bi ni mu ko tuddee mooy la bomb Aliou Sall bombe bi mag ja di Macky Sall libération bind na ne mi ngi bombante ak ñi ko bëgg dugal ci coow li ubbil journal bi Macky Sall ma nga fay leeral ne ci mbir yi ñuy wax état bu Sénégal amul dara lu mu ciy reproché wu ma nga fay leeral it li tax mu approuvé décret boo xam ne Abdoulaye Wade ak Karim Wade ak Souleymane Ndéné Ndiaye ñoo ko signé Macky ne fa it Abdoul Mbaye mi préparé décret bi xanaa kay léeg-léeg dafay naax lise ko nañu léegi nag coow li mu di mbirum pétrole beeg Aliou Sall ak Franck Timis coow li mujj na ca mbedd mag ca taabali justice ministre de la justice na procureur général bi ngir mu lijjanti ko ci yooyu la jamono kuréel gii di aar li ñu bokk fas yéene amal ak manifester ajuma ji di ñëw ca place obélisque journalisé nañu waaye bu dee am na kuy wala luy farege ñeente xolu sénégalais yi ci mbir yi moo di honorable député Awa Niang deuxième questeur à l'Assemblée nationale yéenekaay bi nañu moom honorable député Awa toj toj wu rëy la wax ne daf ne day jàppale Aliou Sall dem ca page Facebook am bind fa ne yëf yi bi muy xew fekk moo fi màkk la ma fekk waaye Aliou Sall na xam xam nañ li xew yëpp xam nañu ne budul woon ak Aliou Sall kenn du mës a gis pétrole ci réew mi journal bi nañu moom honorable député Awa Niang deuxième questeur assemblée nationale bu waxee loolee wax na lu dul dëgg wax na lu ko neex wax na it lu mu tegul fenn feneen di ci journal la Quotidien mi ñu xamal ne ajuma ji di ñëw muy ku jëg politique yi di so muy ku jëg politique yi di société civile gi woote nañu am ndaje ca place Obélisque la ñu fa nar moo di manifeste fa ngir sàkku ak leerange ci anam yi ñu yoree pétrole bi ci réew mi yooyu la jamono it Le Quotidien mi ngi ñuy yegge ay kàddu yu bàyyee ko ci archevêque bu mu yëkkatee ko ca pèlerinage marial Popenguine archive gu Ndakaaru bi di sàkku ci ñu jiite réew mi ñu doxal mbir yi ci anam yi gën lu yéeme l'observateur nee nañu moo am ca Sangalkam benn waay moo fa faatu xale dëkk ba ne kenn du ko suul ci armeel ya ndax waaja ba muy dund ab góor jigéen la woon